xam nga dafa am une réalité boo xam ne. voilà euh, kenn mënu ko kenn mënu ko occulter aujourd'hui au au niveau de Yewwi Askan def c'est-à-dire keroog ndeysaan ba Gakou ci euh, rassemblement place de la nation ba. Mhm. Euh, mu ne mu joxe gage quoi mu ne man lu nakari Ousmane Sonko. Euh, du ma ci du ma ci du ma ci dox voilà maa ngi confirmer sama euh, solidarité sama amitié ci Ousmane sonk dafa am benn réalité boo xam ne moom moom mii na yeewi c'est-à-dire tous les autres leaders ku ci ku ci bëgg a euh, continuer di am euh, l'aval des militants sympathie militant bi da ngay régler doo wax lu déborder te da ngay nekk sous la de Ousmane de Ousmane ku ci wàcc yoon euh, gars yi wax may non may ma may ma non ma may de may ma non du ma ci yoon du ma la may de gars yi ku ci wàcc yoon may ma ñu def débat bu neex da tontu yeewi askan wi ay kilifa ñoom waaw déglu ma rek may ma ma dellu yow du man ngay jàngal respect non ah, non non parce que li ngay wax day mel foofu day mel ni ay ay ay dunguru ñoom. ma ne déglu ma rek may ma rek may ma donc ku ci wàcc yoon ku ci wàcc yoon la euh, mët. dal dal dal dal dal ci sa kaw muy benn. beneen bi tey mu am quel mët laa lay laaj. may ma ñin ñin oh, ñin ñin géej ñin ma ne tu ma laisse terminer laisse ma terminer di nga xam man de quel mët. beneen réalité bi mooy bari na ñoo xam ne tey non non man dama fi da nga ma bindal da nga ma bindal conférence. membre de la conférence ñoo xam ne tey ñu ngi nekk yeewi askan bi. ñoom ñëpp seen discours yeeg seen wax yëpp. c'est est pour euh, saturer la sympathie de Ousmane Sonko au cas où Ousmane Sonko. damul euh, ñu mën a am la sympathie des militants de Pastef waaw mais Pastef nag doxewul noonu. ñaari mbir yi ñoo miine yeewi askan bi parce que ah, ñooñu xamuñu yàlla. ñooñu toog foofu naan ay bu Ousmane bokkulee xaw ma lan ak lan ak lan ak lan xamuñu yàlla yàlla mooy doxe nguur fi taxaw ni naan Sonko du bokk il a été condamné fële nañ ko ak fii dugg na fi a fi fàtte nañ yàlla dañoo dem ci xalif généralu Canaba conférence des leaders Ousmane Sonko toog xalifa Sall toog Fatou Blondin keroog ma nga ca Cheikh Tidiane Dieye ma toog xalif bi ne ko su yàlla bindee ci yow biddiw biddiw buur buur ba jël la dugal li ci gën a di la dëbb dëbb la ba nga mokk espérant que doo mës falu ci réew mi xanaa xamoo gën gi du laal biddiw bi biddiw bi nekkul ndox nekkul deret nekkul yax nekkul daa biddiw yàlla moom moo koy def ci nit may mun a ñiy jàppee loolu yépp bu dee lu am la ci biir yeewi il se trompe lourdement man dama dund benn expérience boo xam ne pendant sept ans ku wax ma ne la barke Muhammad avec ou sans parce que boobu sax yeewi yeewi amul xéewal bu ñu yàlla wàcceel la mais boobu yeewi amul 2015 lañ mettre sur pied un mouvement neuf mois après l'élection de Aliou Sall ma ne leen kii day ñibbi te maa koy wutu gaa yi ne xoolal comédien bi ma leen baax na nañ leen ca dem li tax man ma yoroon mouvement kilifa yépp yor ay parti d'accord ca amul kenn koo xam ne mosuma laa indi géejawaay Ousmane Sonko indi naa ko géejawaay ay yoon yoon. et pour en revenir à cette histoire là déglu ma rek Khalifa Sall bi mu génnee prison ma sant ko gërëm ko kilifa la Khalifa kilifa la ba Guy Marius Sagna dama ko dégg barki démb mu wax lu lu lu lu ma neex gis nga dëkk bi y a des responsables Guy Marius Sagna waxu kilifa la fa wax keroog parce que dafa ñëw César gi rek <laughs> waaw yéen Pastef ak Khalifa mu ne leen Khalifa. kilifa la. Ahmed Aïdara tu ne ne reproche pas aux journalistes de poser les problèmes sa bàyyi loolu. bul jël jikko boobu jikko boobu ngeen yor fan yi baaxul. may di ah, may. yow xam nga ne moom si may def moom. man kenn du ma wax a wax. bul jël jikko yooyu waaw déglu ma rek déglu ma rek ma ñëw. Guy Marius Sagna mu ne bi nekkee ci prison bi. Khalifa Sall chaque jour daf doon laajte gii ci lan la ne gii ci lan la ne gii ci lan la ne ba yàlla dogal ñu génn kooku du toog ci ab bërëb ñu naan xalifa lii wala xalifa lee wala xalifa lii li mu koy seedeel mooy kilifa la man tamit xalifa bi mu génnee ci prison bi dama toog ba mu saataay woo ma ne ma dafa am ay nit ñoo xam ni xalifa dafa jàpp ne ñii dañ ko xeexle ci combat bi te yow dañ ci bokk da leen di seeti seeti ñu bari xalifa woo ma ne ma dama la bëgg a seet si géej waaye ñëw nuyu la ma ne ko même ma tàggu samay mbokk yow kilifa nga nekkoon n'importe qui du ma la gàttandu ci saal ñu mitingal ko Aïda Mbodj ñëw na fa Déthié ñëw na fa ñoom ñooñu ñëpp bi ñu ñëwee liñ fa gis bi ñu demee ba heure tànn bi jot dañ ne nañ leen tànn Ahmed. pour en revenir ci vidéo nguur bi nga doon wax concernant Ousmane Sonko. merci no waaw mais voilà gis nga ñi fi nekk noonu naan ay non Sonko waaw léegi bu bokkulee bokk yeewi ci boppam dañuy nax seen bopp tëdd di nelaw naan sympathie waa Pastef dugg na Pastef dinañ liggéey ba ñëw ba toll fi ñu toll nii. duñ dem ba sës duñu am plan A duñu am plan B ku yaakaar ne Sonko du bokk ci élection yi juum nga te ku xool ni affaire bi demee nii xam ne mbir mi rax na de Sonko day bokk par force te looloy dëgg kenn moo dul bokk. mooy